yaatal wax ji muy te lépp rek tënku ci yar ak teggin nga xam ne képp ku ko jàng di nga am ay teggin ci sa diggante ak sa borom waaye di nga am ay teggin ak sa diggante ak say morom kon téere boobu lañ jàng mu commencé nag ci bismillahi rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ne bismillahi ci tudd turu yàlla laay commencé samay wax ak samay jëf arrahmaani yàlla ki aji xéewale xéewal yu dijji ci àddina الرحيم يلا ميجي اجي خيولي خيولي سوي تي الاخره بسم الله الرحمن الرحيم تو مودي بسمله يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فو خون لوي كوماسي بو بو كوماسي وول بسم الله الرحمن الرحيم دو ام بركه ولا بركه با دنا ديس با بي léppam ci bismillahi rahmaani rahim ci basmala la koy commencé mu ne na kon maa ngi commencé samay wax ak samay jëf ci turu yàlla euh, mi nga xam ne mooy arrahman di rahim moo am yërmande yi arrahman mooy yërmande yi àddina nga xam ne ñëpp ci bokk yam mbindeef yëpp euh, nit ñeeg jinne mala yeeg seytaane yeeg ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñëpp ci yërmande yàlla jooju dugg nañ ci te bu ne arrahman kay ji xewal xewal yi dijj ci àddina nga xam ne ñëpp ci bokk yam wala yërmande jooju ci la picc yi di yërëme seeni doom waaye ci la baay di yërëme doomam ci la yaay di yërëme doomam bépp yërmande boo gis rek mi ci àddina mi ngi jàngee mi ngi mi bokk mi ngi jàngi ko ci arrahman waaye arrahim nag yàlla ma ngi ko jagleel rek ña nga xam na ñoo ko gëm ci àlaxira mooy ñun jullit ñi rek la yàlla jagleel loolu waaye fii ci àddina nag ñun ñëpp ci bokk yem ñi ko gëm ak ñi ko gëmul waaye àlaxira nag ñëpp ci bokk yem mu ne wasalla yàlla na dolli tel tedd wasalla yàlla dolli tedd allahu yàlla ala sayidina ca suñu sang ba muhammadin te moo di muhammad wa alihi ak ca ay ñoñam ak ca ay ñoñam wa sahbihi ak ay saxaabaam wa sallama te mu dolli ko wóolu wa sallama te mu dolli ko woolu tasliman ak dolle wóolu ak dolle wóolu mu ne mi ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defal ko salaatu wa salaam defal ko xéewal aki i defal ko ay ñoñam aki saxaabam ay ñoñam nag buñ ko waxee mooy ñi nga xam ne dañoo doonoon ay mbokk mbokki deretam ba pare nag gëm ko saxaaba yi nag ñëpp ci lañ bokk waaye boo waxee ay ñoñam rek mooy ñi nga xam ne ay mbokkam lañ woon doonoon ay jege ñaaleem yàlla dogal def leeruk ngëm xéewale leen ko ñu gëm ko ñooñ ñooy ay euh, ñoñam ay saxaabaam nag buñ ko waxee mooy képp koo xam ne rek gëm nga ko dugg nga ci biir loolu mu ne xasbuna doy nanu allahu yàlla wa neama te amul moroom wa neama te amul moroom alwakiilu yàlla miñ wakiil suñuy mbir alwakiilu yàlla miñ wakiil suñuy mbir xasbuna allahu wa neama alwakiil mooy yàlla doy nañu te doyloo nañ ko ci gàttal rek loolu lay firi yàlla doy nañu ci suñuy mbir waaye tamit doyloo nañ ko mu ne mu commencé wax nag ne innama al aamalu naka jëf ya binniyaati nekk na ca yéene ya innama al aamalu binniyaati xadis ñëw na ci bu commencé loolu wax ne jëf yëpp mi ngi aju ci yéene yi lépp looy jëf rek la nga cay yéene nga cay am tey boo doon lekk boo ci yéenee jaamu yàlla da nga ko ca am boo dee naan boo cay yéenee jaamu yàlla da nga ko ca am même boo dee nelaw sax nga yéene maa ngi fas yéenee nelaw taabudan li wajhi llahi taala al karim maa ngi fas yéenee nelaw ngir jëmi yàlla li fekk nga yeewu dañ lay bindal tuyaaba boo dee sangu nga yéene ci jaamu yàlla. li feeg ngay noppi dañ lay bindal tuyaaba kon nit ki fi mu mën a amee tuyaaba bari na kon jëf mu bari mu néew mag nga ca amee tuyaaba ju baree bari ci kaw yéene jëng cey yéene moo tax mu ne kon innamal amalu naka jëf ya binniyaati nekk na ca yéene ya mu ne wa innama li kulli mri'in da ngay boole ñaar bari wa innama li kulli mri'in naka ñeel na bépp cam naka ñeel na bépp cam mooy naka ñeel na bépp nit rek naka ñeel na bépp nit mooy naka ñeel na bépp cam maa la nga xam ne nawaa yéene na ko wala nga ne maa nawaa la mu yéene nga boole ñaari baat yi wa innama na kulli mri'in naka ñeel na bépp cam maa nawaa la mu yéene mu ne nit ku nekk rek la nga yéene ngay am ku nekk rek jëf ja nga jëf la nga cay yéene rek nga cay am boo jëfee dara boo ci yéene wu dara doo ci am dara waaye boo boo jëfee jëf daal lu mu rëy rëy te jëf ja ànd ak yéene doo ci am waaye boo jëfee jëf lu jëf ja tuuti tuuti boo ca yéenee am ci lépp kon innama al amalu binniyaati waaye wa innama li kulli imri imma nawa mu commencé nag ci ay xikma commencé ko ci téere bi moom sëriñ bi wax ne wa fil nekk na ci xikam xikam buñ ko waxee mooy wax ju am njariñ wax ju jub ju rafet ju am njariñ joo xam ne képp ko am xel bu ko déggee rek dina nangu wax ji moo tax boo demee ci alquran euh, subhanahu wa taala mi ngi wax ne wa laqad aatayna luqmaana al xikmata mu ne luqmaan joxoon nañ ko xam-xamu xikma mooy sasage mooy wax joo xam ne boo boo ko déggee rek da ngay xam ne lii wax ju jubla wax ju neex la wax ju am njëriñ la mu commencé na ci téere bi ne wa fil xikami nekk na ci xikam mooy ci wax ju am njëriñ yoo xam ne ku am xel mu rafet boo ko déggee nangu ko mu ne man talaba ku sàkku al amra mbir ma wa jadda te mu farlu ca wa mu am ko man talaba ku sàkku al amra mbir ma al na mbir mbir ma wa jadda ta mu farlu ca wa jadd mu am ko nee na képp kuy sakku mbir ak mbir ma lu mu mën di doon lu mu jafe-jafe jafe-jafe jafe-jafe boo ca farlu boo ca farlu rek da ko am mbir mooy sakku rek yow nekk ci rek lumu metti metti metti yow am ci ak farlu boo ko defee rek di ko am mu ne wa man ku fëgg al baaba buntu ba wala jat mu nur ca moy mu sax rek te dem walaj mu tabbi ca ko man qaraa ku al baba buntu ba walaj mu nur ca walaj mu tabbi ca mu ne kep ko xamne ne wax jéemu la wax ci kanam ne man talabal amra wajad wajad la lay leralat fi mu wat benen hikam wax ne kep ku feug ku taxaw ci buntu di difa difa te dem bu yàggee ñu ubbi la buntu ba tax ma ne képp kuy sàkku dara yow sax fa rek am ci positif am am ci ak farlu bu yàggee rek yow la ngay sàkku nga am ko ndax ab buntu ko fa taxaw di di fëgg bu yàggee nga ñu ubbi la wala ba nga xam ne kenn nekku fa nga noppal sa bopp te dem sa kon mbir muy man di moom man di doon rek boo ci amee ak farlu suñ borom mën na la caa defal tawféex mu ne wa fiha nekk na ci wa fiiha nekk na ci xikam wala ba bokk na ci xikam man am saka ku jàpp boppam wala boog man am saka am na ñu koy firee ku bàyyi waaye man nga wax rek man am saka ku jàpp boppam anil fuduli walif ay caaxaan walif ay caaxaan ñu ne ay caaxaan walis ay caaxaan wa fiha wax ne man am saka ku jàpp boppam عن الفضول وليس أي كهان عد لما ليفكو ولكن عد كن لما ليفكو من أرباب الحقول من أرباب الحقول كي بروم خلي كي بروم خلي موي وي وي موسي مو نه كيب كو خامني داغا تيي سا بوب كي مبولم خيتو تياخاني am képp ku bàyyi daal mboolem luy xeetu caaxaan tey ci sa bopp ba doo ca dem doo ko jëf doo ko wax doo ko jege ah kooku day udda min arbaabil uqul def na ko limaale ci borom xel yi dañ xam ne kii kat ko am xel la ndax ki am xel dëgg mooy fekk ay caaxaan mu bàyyi ko xool lay dëgg euh, mu mu mu mu mu mu dal cay nekk kon képp ku téye sa bopp ci ay caaxaan ah mënees na laa limaale na kiikat kat mi ngi mi ngi bokk ci borom xel yi. mu ne wa fiha nekk na ci xikam ñu wax ne man koo xam ne laa yusxitu du merloo nafsahu bakkanam kooku moom jërul muy sonal boppam na xam ne laa yurdi du gërëmloo rabbahu boromam nekk na ci xikam ñu wax ne wa fiha man laa yusxitu nafsahu laa yurdi rabbahu وفي هناك نجي كم من كو خمنا لا يسخطو دو ميرلو نفسه بكنم كو كنا خمنا لا يرضي دو قرم لو ربه برومم نينا حكم نيونا وحنا كيب كو خمنا دو ميرلو بكنم دو تاقد بكنم تي خيتي بانيخي تي بكنم مويتوكو دفا باي بكنم نون رك موي دف لوكو نيخ دو ميرلو موك بكنم نينا كو داي جيرول موي سونال بوبم تخمنا دو أم غرمول يالله du mës gërëm gërëmloo boromam ku dul mer merloo bakkanam daal du gërëm gërëmloo du neexal boromam du gërëmloo boromam mu ne wa fiiha nekk na ci xikam man faala fiha bokk na ci xikam man faala ku def ma shaa la ko neex laqiya mu dajeek maa saa la ko naqari mu nekk na ci xikam ñi wax ne képp ku def lu ko neex faw mu dajeeg lu ko naqari te du ca mën dara wa fiiha bokk na ci xikam ñu wax ne man laazama ku taqoog mujahadata nafsihi jihaatag bakkanam faaza kon mu texe inda xuluuli ramsihi fa wàccuk bàmmeelam wa fiha bokk na ci xikam ñu ne man laazama ku taqoog mujahadata nafsihi jihaad ak bakkanam faaza kon mu texe inda xululi ramsihi fa wàccug bàmmeelam mu ne képp koo xam ne dangaa taqoog jihaad ak sa bakkan xool li sa bakkan di bañ nga di ko ko moytuloo bu fekkee sa bakkan dafa bëgg ay nelaw yu bari nga jihaat ak sa bakkan fexe ba doo nelaw lu bari bu fekkee sa bakkan dafa bëgg lekk gu bari nga fexe ba jihaat ak sa bakkan euh, ba doo lekk lu bari doo fekkente ne naan gu bari la bëgg bu fekkente ne wax ju bari toog ci ay yenn jataay yi euh, loolu mooy nga jihaat ak sa bakkan ci yenn yi maanaam lépp loo xam ne sa bakkan bëgg na ko rek nga xam ne euh, dana ci am bànneex nga fexe jihaat ci ak sa bakkan fexe ba xañ ko loolu nee na képp koo xam ne def na loolu day faaza inda xululi ramsi yi dana am ak texe waxtu wuñ ko dugalee ci biir bàmmeelam jamono bañ koy yor ci biir bàmmeelam daal dana fa fekk ak texe gu mat sëkk ndax day ci xeetoon na ak bakkanam ba lamu bëggoon ci ay baneex mu xañ ko ko wa fiha nekk na ci xikam ñu wax ne man man ku topp ar rasula yonente bi naa mu am xoy rasul ngën gi fajuk aajo ngën gi fajuk aajo bokk na ci xikam ñi wax ne képp ku topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, na nga xam ne suñu borom defal na la tawfeeq la nga bëgg yépp da ko am ndax ci topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ñuy amee eh, ci la ñuy rawee waaye ci la ñuy amee fajug aajo ndax sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran wax ne man yutii rasula faqad ataa allah ku topp yonent bi ah benn la rek mel mel na ne topp nga yàlla te ku topp yàlla nag tabbi tabbi àjjana kon boo toppee yonent bi topp nga yàlla benn la am na feneen fu muy wax ne qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabixuuni qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabixuuni yuxbibkumullah wa yaxfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim yaakaar naa noonu la ko waxee wax ne qul yow Muhammad waxal saxaaba yi ak julit yëpp ne leen in kuntum tuhibbuna allah bu fekkee bëgg ngeen yàlla bëgg ngeen wax ne bëgg ngeen ko yàlla loo dëggu la ci yéen ah fattabi'uni kon topp leen ma man yonent bi ku bëgg yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg balaa nga koy mën a xam day fekk mu topp yonent bi waaye ku kuy oote yoo bëgg yàlla te teguwut ci sunna yonent bi xamal ne kooku bëgguwut yàlla mënoo bëgg yàlla te du topp yonent bi moo tax mu ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni Muhammad waxal sa gars yi ne leen bu fekkente ne bëgg nañ yàlla ne leen nañ ñëw topp ma nañ nañ ñëw topp la yow yonent bi buñ la toppee nag résultat bañ ci ba ba muy ba muy jur lañ cey amee yuhibbukumullah yàlla ci boppam sax moo leen di bëggaatal boppam yàlla mooy wëlbatiku bëgg leen waaye yàlla du yem ci loolu wa yaghfir lakum zunubakum yàlla da ciy boole bëgg leen ba pare nag jéggal leen seeni bakkaar wallahu ghafuur rahim ndax yàlla kuy jéggale la waaye kuy yërëme la kon moo tax mu ne man taab man taaba an rasula naa la xay rasul képp ku topp yonent bi rek di nga am ngën gi fajug aajo mu ne waqaala wax na jaamiu haazihil xikami aji boole yi la xikam wax na bay baytan aw bayt waaxidan bu di benn fii haza al maana ci bile maana wax wate moom bayt woowu mu wax moo nekk nii muy bëgg a wax nee na ki dajale xikam yii ma doon wax léegi nii xam nga léegi ay xikma yoo xam ne sëriñ bi wax ko daf koo dajale ci téere bi commencé ko ci téere bi andi ay waxi borom xam ñoom la ñu wax mu andi ko commencé ko ci téere bi léegi nag nee na ki dajale xik xikma yii nii wax na moom benn bayit woo xam ne manis na koo dugalaale ci biir xikma yi daf ciy bokkaale loolu mooy lan nee na wa kullu man képp koo xam ne صام ورنا عن الرزائل ولف تاي تاي فإنه نكموم يفطر دانا دوغي بالفضائل تنغنيلي وكل من كيب كان خامن صام ورنا عن الرزائل ولف تاي تاي فإنه نكموم يفطر دانا دوغي بالفضائل تنغنيلي sëñ Tuubaa nee na képp koo xam ne danga woor ay caaxaan danga ngaa woor ci xeeti caaxaan caaxaan yëpp da nga caa woor nee na booy dog day ci ngëneelu suñu borom yi ngay doge képp koo xam ne moytu nga lépp lu xeetu fo ak caaxaan ak bakkaar lépp lu la jëmee ci musiba nga woor ko bu ñu waxee woor nag mooy nga bàyyi ko rek woor moom mooy nga téye sa bopp ci dara tey. Euh, man nga xëy suba bañ a bañ wax euh, su boobaa def lay tuddee ku woor da woor euh, anil kalaam ci ay wax boo demee sax yaakaar naa ci suratu Maryam moo juumul am na fu yahudi doon waxee ak na Maryama dama teewlootul aay bi waaye ñu ngi koy wax naan ko xanaa danga ngaa woor teewlootuma aay ba mën ko wandi waaye. muñ waxee woor rek dafa yaatu nekkul na rek bàyyi lekk naan waaye lépp loo xam ne bàyyi nga ko rek dañ lay tudde ne kii kat dafa woor ci nangam kon képp koo xam ne woor na ci ay xeetu caay-caay bàyyi ko nee na buy dog suñ borom dana ko dogale dana doge ci ngëneelu sunu borom subhanahu wa taala kon ñi yem foofu foofu baax na ok allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim